Euh, kon incha allah ñu jéem a euh, romb ci li nga xam ne moo nekk suñ kanam. kii dafa laaj mu ne dafay ñaan ñi wax ko euh, feebar boobu ñu mën a tudd muy naw sa bopp lan mooy saafara lan mooy saafaraam lu koy faj defe naa ne bu fekkee seetlu ne ci biir waxinu conférence bi ni ma ko tëree. defuma ko ci anam goo xam ne damay tudd feebar bi ne saafaraam mooy nangam waaye benn bu ci nekk jiital naa saafara si door indi feebar bi ci boppam naw sa jëf li koy faj ñaari mbir la maanaam naw sa bopp mooy sa jaamu yàlla yi tax nga naw ko damay fàttali rek waaye waxoon naa ko yàlla yi tax nga naw sa bopp xool ci ñaari xool benn bi mooy xamal ne àggul ci ni sa boroom yeyoo ci yow li mu yeyoo ci yow ëpp na loolu beneen bi ci des xamal ne jaamu yàlla yooyu loo ko naw naw boo dundoon fi lu mat junni at itam jëndagoo lenn kenn kendal ci àjjana kon lu ñuy naw amagu fi loolu nag su ko nit ki yëgee dana woyofal boppam wàcc màggaay boobu ma doon yëg mu wàññi ci tuuti ndax mu feebar bi mën a wér ci def ne li ñuy tuddee iqaamatul xujja kan moo ko yeyoo ci jullit yi ah daanaka sooy ba mu ne ñëpp ndax xujja ci boppam dafa bokkut iqamatul xujja bu ñu ko waxee mooy nit ki kañ la paxtab lislaam di tege ci kawam ci masala wala ci diine ji loolu mooy lan mooy kañ la ko li war ñépp di war ak ci masala bi taxaw kañ la ko li war ñi ci des di war mooy su ko xamee su ko xamee ki xamagut kooka tooñut boroom bi ne mosuma mbugal kenn lu dul dama ko xamal ba noppi wa ma kunna muadibina xatta nabasa rasula duñ bugal kenn lu dul dañuy yobal ci nit mën naa doon bu yonent mën naa doon boroom xam-xam mu jàngal ko ba mu xam ne lii baax na lii baaxut su boobaa nag su xamee ne lii baax na mu bàyyi ko paxta ba dal ci kawam su xamee ne lii bon na ba mu def ko lay xew door a xew su ko defee iqaamatul xujja day masala boo xam ne daf cee am yoo xam ne daf cee am lay yoo xam ne ñoo taxawal seen bopp mooy lu mel ne xaaj bi ma njëkk a tudd bi may ubbi li ñuy tudde almaalum min addiini bi darura nga xam ne jullit yépp ko war a xam jullit bu bàyyi julli ci mii réew wala nga bàyyi koor wala nga ne aj màkka du farata wala jaamu yàlla yu fis yu yooyu nga daganal ko ci sa jëmm kenn du wax ne kooku daa xamul ne lii farata la kon woowu lay wuñ dul lay woo mën a joxe ci àdduna wuñ dul nangu lay doon ci sharia kenn du ko noonu jullit bi jëfandikoo njaaloo wala mi naan sàngara te wane ne dafa dagal ci moom kooku kenn du wax ne ñàkk a xam moo tax kon woowu lay moo taxawal boppam am nag lay yoo xam ne nit ki xamu ko nit ki nuur na ci biddaa di ko dundee diineem yépp wala lu ci ëpp mu teg ko ci biddaa te xamul ne loola biddaa la su boobaa kooka xamal ko ne li muy dund biddaa la loola mooy jaarul nit ki nekk na sax ci sunna di góor lu nuur ci masala moo xam ne daa jàpp ne nii la fekk njuumte la lu tax mooy lay wa taxawagut su boobaa taxawal lay wow moom lañuy ñuy tuddee iqamatul xujja kon iqamatul xujja ci ñépp lay dellu waaye kenn ku ne nag ak ci étape ba nga toll foofu lañuy ñuy taxawalee xujja ci sa kaw kii def ne tudd nañ ci sabab yi tax nit ki bañ dëgg wala mu daw ko aada yi ak cosaan yi ak yu ko nuru mu ne moom su fekkee ne dafa takk kenn ci ñooñu yi nga xam ne dañ leen a suufeel tudd na sax ay cité na ay ay ay xeet waaye du ma ko tudd dafa wax ne su fekkee ne takk na kenn ci ñun suufeel su fekkee ne la muy jur mooy moom dañ koy effacer ci société bi nee na kon ban fees ban façon laaye biir lañ koy jox ala kulli xaal effacer ci société bi moom yaakaaruma ne mbir mi àgg na ci nag dafa am mbir yu bari yoo xam ne nit ki di ko def lim teg ci boppam ne su ma ko defee moo mën moo cay tegu fekk na loola du ca tegu daf ko jàppewul dafa xamul mbir ma dëgg-dëgg nam mu waaye du àgg foofu nag li wareen du àgg foofu mooy lan mooy nit ñi xeet wu ne gis ne que tey nit a nga cay bokk di takk ci xeet wu nekk te taxul ñooñu avancé wunu ci société bi teewul ñu ngi ci société bi di def la leen waa li am solo kay mooy ñi xam fan lañuy jaar ba parents yi nga xam ne ñoom ñoo yor seeni doom di maye ñu nangu ku ñëw di ñaan seen doom te am diine am ngor amul njullit baax ak foo mën a bokk ñu nangu laa may seen doom bu dee ku góor ka ñu nangu ko bu dee ku jigéen ka moom it ñu nangu koo denc fu ñuy jaar ba loolu am loolu mooy mooy liggéey bu mag bi loolu nag ñépp ci mën a jàpp surtout nag parents bi parents yi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi ñu jigéen ñi bari na ay xale yoo xam ne yu góor ak yu jigéen gisante nañ xamante mu wóor leen ni ñoom ñëpp kenn ku ci ne sa moroom doy na la ci wàllu diine ci mbaax ci wàllu jikko ba dara desu ci lu dul àggale sëy boobu ci diggante parents yi parents yi rek gàllankoor ci loolu ñu ne kii fee la bokk kii fii la bokk kon duñ leen boole loola su boobaa wax dëgg yàlla loolu du lislaam donte nag kenn mënu ca dara kenn mënu ca dara loolu jaadul nu xam ko maanaam baay bi ne mayewuma sama doom kenn mënta damm loxoom ne ko tey nga maye ko ah xanaa nguur nguur nag sañ jàll ci àll ba bu dee ci lislaam jaar ci àll ba maye waaye sañ na ko woo ñëw ne ko par force maye ko parce que lii nga wax yenuwul maanaam forcé ko mu maye moom borom pouvoir sañ na ko bu dee ci lislaam bu doon lislaam mooy àtte sax mën naa dem ba kilifteefam gim yilifoon ndaw si ñu dindi ko dégagé ko teg fa keneen ci ay bokk mooy baay bi ko jur nee na mayewuma sama doom ñu ne ko lu tax woo ko ci tribunal mu ñëw ñi ñi atte ko ne ko lu tax kii ñëw nga ne doo ko may sa doom su waxee benn jikko bu aju ci lislaam nag te loola doon dëgg su boobaa ñu ne ko ah li nga wax yor na su fekkee diineem nga xeeb te nangam ak nangam moo tax nga xeeb ko parce que lis atte itam nag ci lislaam demewul noonu maanaam doone damaa xeeb diineem rek ñu la kon mën ngaa dem dañ la wax lu tax foofu nag la responsabilité bi rëy di ñëwee parce que boo ko boo waxee loo xam ne amoo ci ay témoin boo ne day naan sàngara ñu ne la ñu ko gis boo newul kenn da koo gis juróom-ñett ay ay nangami yar moo lay war boo ne dafa njaaloo noonu ay yara cay war boo indiwut ay témoin yu ko fekke moo tax jullit bi jamono yam nekk foofa day teew lam ñoom lu mu xam lay wax du caagi lu la neex rek nga ne moo tax kon foofa lay am mooy benn nga ne diine moo tax wala nga ne dafa bokk ci askan sàngam man ci askan laa bokk moo tax nanguwuma ko may su boobaa tribunal bay atte ci lislaam day wax ne loolu taxawut ci lislaam ana ku fa sës ñi ne am na day ku góor ku mu bokkal ndey bàyyi ñi ne ko nañ ko woo mu ñëw ndax nangu nga maye xale bi bu ne waaw ñu ne ko ma demal ngeen maye ko su toppoon bokk yi bañ jeex kenn nangu ko maye su boobaa imaam la ñuy woo wala qaadi muy attekat bi mu ñëw maye ko su boobaa lislaam moo ko maye waaye nag ginnaaw atte bu mel noonu nekku fi ma nekkoon kon kenn mënu ci dara waa ji ne mayewuma sama doom kon salaamaaleykum demal jigéen ñi bari na demal seeti keneen loolu rek moo ko sos kii moom laaj na laaj boo xam ne bu xaw doy waar la mu ne imaam yi génn di marche ci jamono yi comme que ak yàlla ci la ban xalaat lees ci am ala kulli xaal bunt boobu dama koy dugal ci buntu jamono ju nit di dund ju nekk war nañoo delloo si xel yi bu baax a baax rawatina ñi ñi tudd ay imaam lañ wax ma ci société boo xam ne ay jullit lañ mooy place bi gën a kawe mooy place bi gën a kawe dëgg nag nun fexe nan ba wutal suñ bopp nag ay yëf yeneen i tur ak ay njiit ak ay nangam yoo xam ne jox nañ leen tur yoo xam ne suñ leen tuddee mooy gën a rëy fi nun lu tax mooy gën a rëy fi nun mooy imaam ñemees na ko fooyee te tur yooyu kenn ñemewu leen fooyee defe naa xam ngeen li may wax ab xalifa kan moo ko ñemee jël tey ab xalifa di ko fooyee def ko ci film génne ko ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne bàyyi ili ñu bàyyi xalifa di ko fooyee ci film ba ngeen gisoon ndax ñemees na ko ci réew mii nu nekk ci Sénégal pourtant xalifa de autour la woo xam ne nun ci ci anam gii mu tëddee nii ci yéen tegal suñu bopp la bokk waaye imaam nag dafa doon loo xam ne lislaam moo ko samp mu jiite jullit yi kon kooku place bu rëy la ka fa nekk fu mag la nekk kon ma ne su nekkee ci jamono joo xam ne dañ naan fit naa ngay am ak amul dereta ngay tuuru mbira ngay am responsabilité imam nag taxaw na taxaw na bu wër nag ci mu nekk benn pacificateur maanaam koo xam ne tax di ah dalal mooy itteem jot na bu boobaa man day ku fiir laa ci ci imam ci ñu doyadal ko lu muy metti lay doon ndax suñ ko doyadalee yëg naa ne doyadal nañ lislaam te jullit bu nekk jàpp naa ne loolu nga yëg yii di am li ma ci gën a metti mooy ak doyadal imam bi ngi ci biir imaam dëgg la nit la yi metti nit ñi da koy metti yi koy yi leen di neex da koy neex su problème économie amee da koy yëg comme ni ko ñëpp di yëgee da yëgit ne warees na koo faj waaye ma ne imaam en tant que xam ne moo jiite njëpp war naa mën a am yoon yu respectable yu mu a jaar yoo xam ne dara ci ormaam ak tiraangaam du ca wàññiku mu jaar ko wax ak responsable yi nga xam ne ñoom la ñu war a waxal yëgal leen fi yëf yi toll gravité bi nga xam ne ñu ngi koy dund joxe alerte wan leen ne su fekkee ne nangam ak nangam taxawuñ ci nangam ak nangam mën na ciy judd nun nag dañuy dégager suñu responsabilité bind ay leetar jaar ci imaam yépp jàpp ma ne am na imaam bu ne ci kaw ci réew mi te doo d'accord ci ànd ci loolu ñi dem jox ko ñi nga xam ne ñooy responsable yu mag yi muy njiit yi ñi jiite réew mi la ko tàmbale ci ñi jiite réew mi ba ca ministre ba ba ca ba defe naa ne anam gu mel noonu suñ ko defee dana am jeexit ndax gis naa yeneen yeneeni mbir yu fi jaaroon yoo xam ne lu xawoon a difficile lu jafe woon la waaye bi ci jéego yu mel noonu amee ba mu àggee ci ab ministre dafa dal di régler problème boobu kon jàpp naa ne am na doxiin yoo xam ne yu du tax dara ci maqaamam imaam wàññi ko waaye nag génn ànd ak mbooloo mi ñu ne marche nga xam ne ña koy wax daa mel ne dañoo yàkkamti woon a gis lu mel noonu ba suufeel kii marche boo xam ne imaam yu néew ca ne mbooloo bu baree ca nekk ñu tudde ko marche imaam yi mel ni imaam yi nekkoon ci Ndakaaru yépp dañoo génn ànd doo di marche foofu am na jubluwaay yu fi nekk yoo xam ne yu mat a ragal la te man de dégg naa yeneen yu ca teguwaat gannaaw bi yoo xam ne wóor na ma ne doyadal imaam a ngi ci biir wala darajaam jooju tàmbali na di woyof su génnee tey marche gis ñi jox marche am boobu ittee mu ne ah man kat ndekete am naa kàddu bu ëllëgee mu defaat ko kàddu googu day wàññi ko mu defaat ko bu ëllëgee du tekki dara moom ña doon marche ci mbedd mi ñooy yem rek bu ëllëgee dañ koy sànni lacrymogène comme ñu koy sànni ñëpp mu ne damay def ñu ne ko bul def fekk nekkoon na ci maqaama boo xam ne day ne damay def ñu ne ko bul def lu jafe la woon foofu benn la yi ma dégg ci yoo xam ne dafay doyadal imaam bokk na ci ci presse bi niñ songee imaam yi fan yi di leen laaj te dugg ci presse ak wax day du affaire ñëpp te yow miy wax ñu ne la yow imaam diw du yow ci sa bopp yaay wax léegi dem na ba àgg ci dégg naa ci rajo koo xam ne dafa ñëw ci benn euh, bureau Sénélec di di di jàmbat koo xam ne bokkul ci imaam yi revendiqué benn facture bu ñëw nee na bi ma ñëwee ka ma fekk ci bureau ba la ma tontu mooy ah demal ci imaam yi comme que yéen imaam yi ñooy kii yooyu xam nga loolu kàddu gi doy la beneen bi ab imaam ci boppam ma dégg ñu koy laaj ajjuma ci suba ci benn rajo ñu koy laaj ak dundam ak fi mu jaar ak yu mel noonu mu ne ah ku bëgg football laa woon de àgg ci ñu laaj ko ah football de kooku bëgg moom xale yu jigéen yi nangam nangam mu ne ah, amoon naa ku ma daan toggal ay ganaar bi ma daan football gëj naa ko gis sax war naa ko seeti wallahi wallahi ajuma ci suba ci RFM ah kon ma ne xeetu doyadal imaam ak wàcc place bi mu nekkoon mën naa juddoo ci mbir mi lu aja def attention la néewuñ nag jàmbat lu metti jaaduwut moom kay charte réew mi moo ko mayee waaye danaa di wax ne du lu charte réew mi mayee lu nekk kenn ku nekk mën na ñëw bokk ca am na ñu ko jago waaye du ñëpp am na ñoo xam ne day doyadal maqaama bi day da koy suufeel day mujj du tekkee ci dara te loolu bis bu amee rek musiba am mooy duutuñu tekki dara mbir dana am moo xam ne jóg jot na kenn du jóg wala buñ jógee njariñ du am te imaam xanaa wax dugg yàlla buy jóg di di métitlu facture courant ah ana imaam jamono yi nga xam ne ñu ngi dégg ñuy doyadal yàlla alquran sunna tasaare ay bokkaale ci kaw suuf mu koy dégg jamono yi nga xamee ne ñu ngi fas ay sëy góor ak góor fu imaam nekk jamono yoo xam ne dem nañ ba imaam ci boppam ñu génne ab film doyadal ko soppi ko wan ko nit ñi mu doon koy njaaloo di fecc di dugg di génn di dem ñu ne imaam la ah dajeeg weeru ko ah ana kàddug imaam jamono yooyu ma ne day day xaw a tuuti maanaam principe bi yenu na maanaa lool mooy ku yëg lu metti ne yëg naa lu metti waaye nag jafin wi suufe na suufe na ci maqaamab mu ngoog mu ngoog stratégie bi ni ko amir waxe bu doya di la ci imaam soo waxee lu mel noonu nag nit wenn déggin wu nekk lañ koy dégg ne kii moom dafa xaraamal ne nangam dafa ne nangam noonu yàlla xam ne du loolu wala ñii mooy ñi nga xam ne ànduñu ci lii cent pour cent mooy ñi ci loru nga yëgale noonu ci ñuy gën a loru ci ñooñu ci lan bokk sax foofu école bi mbokk mi tudd nga xam ne fa lan nekk jiite ko danoo yoroon sun sun classe boo xam ne fa la ñuy jàngale informatique bi ñuy dugg ci at mi la xëy lépp Senelec def benn tension boo xam ne dafa lakk fukki appareil juróom ci ay ordinateur yu tegal yoo xam ne ñaari weer a ngi xale yi di jàng jànguñu boobu matière pour loolu loolu dal na ci suñ kaw waaye nag mbir mi metti nañ ci sa kaw bu tee da ko jaar ci yoon yi nga xam ne fa la ñuy jaar saafaraa ko waaye nag boo ne lii yoon maye na ko damay génn jaxasoo ci mbooloo bi marche ñeneen ñëw jaxasoo ci biir yàq tuur ay deret kenn ku ne xam na ne bu boobaat marche imaam ya def nañ nangam ak nangam ak nangam loolay dem ci presse bi muy dugg ci bi adduna bi loolu la ñuy dégg lu mel noonu nag noonu dañuy ñaan suñ mbokki imaam yi lu mel noonu ñu bàyyi ko xel bu baax te la koy faj mooy ñoom suñ demee ba yenn imaam yu nekk fi ab dërëm xalaatee def dara am na seen moroomi imaam yu nekk ci dëkk bi ñu jokkoog ñoom laaj leen xalaat ginnaaw bu ñu defee nangam kat ci seeni tur lañ koy def luy seen xalaat ci nangam ak nangam ak nangam su boobaa ñu joxe seen xalaat ñu door bokk def ko wala ñu bokk bàyyi ko loolu xalaat la boo xam ne wax ko ci loolu defe naa ne lu jaadu la wallahu taala alam kii def ne yi ñuy def ci bisub ashura muy li ñuy tudde tam xarit lan moo ci moo ciy sunna loolooy gàttalu laaj bi lan moo ciy sunna lenn képp bisu asora muy bisu fukkeel ci weer wi nga xam ne mooy at atum jullit ci lay tàmbalee bisu fukkeel booba liñ ci farataal mooy woor ko liñ ci sunnaal mooy woor ko dëgg la farata la woon bi koor nekkagul farata waaye gannaaw bi koor nekkee farata sunna la soppi ko mooy ku ko mën def ko leneen lu cay tegu nag amul leneen lu cay tegu amul dafa am yoo xam ne jullit yi ñu ngi koy dund te xamuñu liy cosaan li bi bisu asura boobu bi nga xam ne musiba mi amoon karbala am na ci muy sëtu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu rey ko tuur deretam foyee ko ay kuréel dañ caa jóge yoo xam ne dañ caa sosoo gannaaw bi tuddoo loolu ba jógee ci tudde seen bopp chia bis boobu dañ koo jàppe bisu musiba boo xam ne saa bu ñëwee su accès sax ba nga seetaan tele bi xool lay xew Irak jamono yi nga xamee ne ka ko daan na fa ak yi tàmbaliwaat nañ ko mooy taxaw di tuur seen i deret di xotti seen i sër di def nangam lu tax ñu ne parce que deret ci Ousseynou dafa tuur ci bis boobu ñu kon bisub dëj la boo xam ne at mu ne day ñëwaat ba loolu amee ci histoire ci lu yàgg am ñu jaamaarloog ñooñu ci ñuy askanoo sunna ñoom itam ñu ne ginnaaw ñii def nañ ko bisub dëj noonu it nañ ko def bisub feet naqarale leen ko su ñëwee ñeneen nañ togg togg yu neex woo nit ñi ñu feet ndokkeelante defal na naqarale ko ñen dereti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak dereti doomam bu tuuroo du leen metti ñoom ñoo gën a jege ñëpp njabootu yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon bis boobu du bisu feet ci ñoom du bisu bànneexu du bisu togg ak lekk du bisu rendi du bisu woote su ñëwee dañuy nature mel nañ meloon waaye ci kaw ne deret tuur woon na ci bis booboo du tax mu doon dëj bu continuer at mu ne mu am ndax sunna xamut loolu yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo gën a rëy ñëpp te bis ba mu faatu woon nit ñi defuñu ko bisub dëj boo xam ne saa bu delsee ñu di ko dëjal kon ëpp sëtam taxul ñuy wax wala keneen ak keneen kon bis la boo xam ne bis bu arafa comme bisu alxames saa boo xamee ne ñëw na nga mën koo woor woor ko bu jàllee jeex na leneen nekku fa wallahu alam kon ci actualité li ci la bokk dafa ci jokkaale beneen laaj mu ne ndax mënees naa génne asaka ci weeru koor umu kay mën nañ ko ciy génne lu bari ci borom xam-xam yi sax moom lañ gën a sopp ndax dañ ne ginnaaw dépensé ci weeru koor jaamu yàlla ci weeru koor dañ koy ful sa asaka nga génne ko ci weeru koor moo gën waaye nag bis boo mën a tànn tànn ci at mi génne ko itam moom mat na fexeel ba bis ba nga koy génne daal saa bu jotee rek nga génnewaat ko kii daf ne ñenn ci nit ñi dañuy tegtaloo ne di ànd ak Arabie Saoudite daal ci woor ak wooreeg yu mel noonu euh, jaaduwul ndax li ñuy wax taatu waliyil amr muy topp njiit dafa doon loo xam ne lu war la maanaam su njiit dogalee ne tey la ñuy woor dee sa war a woor su tere dañoo ci mi nu nekk suñuy laaj dañuy laaj kan mooy wàllul amru ci wàllu sharia ndax mooy sëñ ba su dee sëñ ba ban sëriñ yu bari kon bu fekkee ne ab association la ban la ban mooy toog place wàllul amru ndax mooy commission ba wala mooy mouvement nangam wala mooy jamaat nangam walla ndax mooy état ba waliyul amri ci wàllu lislaam lislaam dafa am gisin bu mu ko gisee ki jiite jullit yi di àtte lislaam yoonam nekk ca lislaam muy digle ci lislaam di ca tere kooku war na ci bépp jullit mu di ko topp fil maaruf su diglee lu baax ñu topp su diglee lu war duñu topp kooku amut waaye am na waliyul amri boo xam ne moo jiite jullit yi ci seen masaalixi adduna kooku itam danañ ko nangul ak jiiteem jullit yi dañ koy nangu ne ko yaay suñ njiit noo ngi ci lépp loo xam ne lu aju ci loolu la waaye nag ginnaaw diine nag bokkul ci programme ba kooku moom suñ mbirum bopp la nun jullit noo koy organiser loolu noonu la tudd loolu la ñuy dund noonu su fekkoon ne day jullit yépp dañoo booloo ba doon benn baat fii ci Sénégal moo xam lañ sos dañ ko tuddee ak conseil supérieur wala tur wuñ ko mën a jox waaye jullit yépp a ngi ci biir ñu teg fa boroom yi xam-xam yu ko jiitee yoo xam ne sharia rek la ñuy xool ñu ne saa bu weer yu feeñee suñ ko déclaré war na ñépp ñu def ko lu mel noonu ma ne su amoon day génn ko dana xaw a nuuroo ak génn ndigal loo xam ne njiit da koo digle waaye loolu amul wax naa la misaal ne la ñaari nit ñu mën a bokk ci genn kër kii di woor tey kii wóorul tey moom lu tax kenn ku ne daa topp li ñu tudde waliyul amr ka méngoo mbiram mooy ka muy topp kon lu mel noonu amul ñu xam itam ne maanaam kenn kuy woote naan nañ ànd ak Arabie saoudite lu mu def ñu def ko loolu amu fi loolu nekku fi demewul noonu ñu bari ñoo ko dégg noonu waaye du noonu waaye ñi lay wax ci wàllu international dañ lay wax ne la fu weer yu feeñe te jóge ci xabaar yu wér ñu ànd ak ñooña waaye nag ànd ak ñii ak bàyyi ñee loolu moom loolu moom amu fi du xalaat sax boo xam ne bu war a yëkkatiku la Arabie Saoudite bu bu bu bu jeng woon ci wét gu mel noonu kenn du ànd ak ñoom ci loolu am na fi at moo xam ne dañoo yëgle tabaski jàpp arafaat ba mu yàgg ñu soppi ko jàppaat geneen bañ ko defee dañ leen a bàyyi seen arafaat ju mujj dëgg la bis ba nit ña taxaw ci arafaat day noonu war nañ ko waaye bis ba ca tegu moom tabaski wuñ ko kero lu tax mooy danoo sikki sàkk ca mbir mën ak at mooma ndax la doxin waa ko waral kon ñu xam ne topp ay nit moom nekku fi waaye li am mooy topp topp li nga xam ne moo dëppoog dëgg moo toppoog sharia loolu la ñuy ñaan jullit bu nekk nga jël sa responsabilité sa diggante sa borom nga nekk ci loolu ba keroog nga koy wujj wa jazakumullahu xayran